kee joxal kii joxal kii Xalifa Njaay Njombas fii am ndaje moo fi xew ah dañuy ne dañuy réunion de loolu lañ ma wax de déet man xam ma xam ma nag lu ñuy réunion fi mu nekk nii waaw xamaguma ko de waaw. yow nan nga tudd ak waaw fii de dañ am am ndaje la rekk muñ fi woote waaw ndaje mi nag moom omo ci lu leer ndax man imaam Juufeen la waaye dañoo jikki ci démb ci ngoon daal lañ ma woo rek ne ma daal dañ faa am ndaje jox ma kii ma ñëw waaw waaw waaw jërëjëf man Boukounta Ndiaye laa tudd dëkk fii ci Mewane mm-hmm. nekk fi tam euh, communicateur traditionnel ah ndaje mi nag am na lu ma ci xam am na lu ma ci ump waaye nag ndaje forum la ñu wax forum nag man ni ma ko doon euh, waxtaane moo doon ndaje la moo xamante ndajam sottante xalaat la kilifa diine dina ci teew député bi dina ci teew ministre dina ci teew directeur de service dina ci teew ak ñi nga xamante ni moo ñoo yore affaire affaire sociale ñooy ñëpp danañ ci teew forum nag mu ngi déparé woon ca jamonoy romain ñoom ñoo daan def léeg-léeg bu ñu demee bay jamono seen réew xaw a soppeeku tuuti ñu wëlbatiku xool lan moo fi manqué ak lan moo nga xamante ni lañ lañ war a defaraat ak yenn rëq-rëq moo am ci réew mi ñu wëlbatiku nag woote lu mel ni am ca marché place publique ba seet nuñ ko saafara loolu nag bu amee ñoom ñoo daan ñoom ñoo jëkk daan def li ñuy wax forom forom nag mooy ndajam sottante xalaat ndajam sottante xalaat noonu bu amee ci réew kenn ku ne am na ci wàll béykat ba am na ci wàll sàmmkat ba am na ci wàll ah, ah, ki nga xamante ne mooy woy xarala bi am na ci wàll woy xarala nag boo ko déggee mooy artisanat artisan yi bon ñoom kenn ku ci nekk sa xel ngay liggéeyee te li ngay liggéeyee sa xel. war nga boo ko liggéey ba pare war caa gis sa bopp jërëjëf man maay bu Boucounta Ndiaye communicateur traditionnel Mewane salaamaaleykum sëñ bi tur ah xew-xew bi de wax dëgg yàlla hmm? jàpp ma ko bu baax de ah wax dama ànd ak sama waay rek mu indi ma fi waaye dafa mën ngi fii ci dëkk bi laa dëkk. ab ab ab réunion rek. ah jàmm la Mmh, waa nguur gee fii dikk ah kooku de moom xam ne loolu daal laa ci dégg salaamaaleykum aleykum salaam man laa tudd Mewane laa dëkk de ah fii de dañ ne nguur gee fi ñëw ñu yore réew mi ñoom la fi yàlla andi ngir ñu waxtaan ak nit ñi dimbali leen defal leen li xëy na wax warante booba tey mu taa yàlla dogal mu taa sotti ñoom nag ñee ñi moo leen tax a jóg yal na yàlla dogal ko ci ñoom li fi gën a far nag bu fekkente ni ci xol yi ñu la ne mooy fii nga xam ni tey ku ñëw ci dëkk bi fi ngay dox di ñëw te mu ne su fee dugg ba ñëw fi oto néew fi dara néew fi lu yàqu ci dëkk bi moo ko fi yàq ku dimbali lii dimbali nga ñaan gépp li fi gën di farataw mooy mi jëriñ réew mi jëriñ di ko réew mi di dëkk yi ñu mën te mënuñoo waxe ba ñëw ci dëkk bi ndax oto ngeen baal ñaq wasalaam. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Maguette Mbengue. foo Meewaan laa dëkk. fii. Hmm. dañu fee ñëw de pour def fi programme. ne ministre bi dafi ñëw ñu di ko teeru. lu mu fiy def si. ah loolu moom dese na maa leer nag. xamoo daal xaw ma yàlla lu ko tax a jóg exactement waaw. soxna si. waaw Ndira Thiam. ah hmm? Ngaay. waaw. Ah. Eh, fii. Hmm. nit bu neex rek. Hmm? fii de la fi ñu xawoon neex na. mitimi ah mitin de ah, am na mitin ah fi ñëw wax dëgg yàlla xamu ko du baara jaay ah. man day Marème Diouf laa tudd Ndukura fii de Baara Ndiaye moo ñu fi woo. ah nee ñëw ndax dañoo bëgg a jàppale jigéen ni léegi nag ñun ñu ñëw indaale si suñu ay bagages yi ñuy exposé fii bon ñu ñuy liggéeyee waaw ñu bëgg nag rek ñu jàppale ci yooyu moo tax ñu ñëw fii gox bi maam soqali gox bi rek la ko mën a jural te loolu daal lañ ci séentu moo tax ñun ñëw fi te yaakaar nañ dañ ko ci am Mbacke Mbay Mbayeen waaw fii de daa am benn ministre buñ ne moo fi ñëw ñu yónnee ndaw yónnee ñu oto ñu ñëw war koo teeru si fii ah, ah li mu fi wut nag moom xamaguma ko moom waaw déedéet yàgguñu ma ko wax ndaje mi moom dégg nga moom sama kii moom ma ko wax rek biig ni ma nga pare di nga am ñu dem ci waaw. ah Ibrahima Mbayeen waaw. fii ah am ndaje di lan fi woote. ah damaa di ñu aw gane fii ñëw rek. Euh, euh, ñu woon ni ñëw leen ñu teeru ko ndax daa am ñu fi waxtaane waaw loolu daal lan wax moom moo tax a jóg ah dina xamaguma ko de xanaa bëgg-bëgg réew mi rek. waaw loolu daal moom tax a jóg waaw. forom bi lii forom lañ ko tuddee forom bi. waaw ah, forom waaw dañuy gox bi lañ bëgg a soqali. bi nu ñëwee nag ku ñuy wax maire Bara Ndiaye jàppanteeg ministre yi indi leen war a soqali gox bi fii gox bi nag euh, bari na lu bari loo xam si bu soobee yàlla ñoo ngi ko ci séentu loolu dañ fi séentu ak waxtaan ak ministre bi ministre bi fi ñëw. mooy ñaari ministre leen fi ñëw directeur ci sa teet ñoo fi loolu mooy mooy mooy mooy mbir mi. Kumba Mbaay Bayti Njaay <laughs> nu fi xew waxtaan ci wàllu gox bi <laughs> Coro Seck Mewane lu xew waxal man mënumaa wax <laughs> Soda waxal am juus moom moo a wax man mënumaa wax <laughs> loolu xew nga xam nga am programme ba rek programme tali bi waaw man mënu maa wax sax doo xal suñu président nga ne <laughs> la ñee ñoo mën a wax Maguette Mbengue Mewane fii de ministre bi moo fi ñëw moom xanaa ñëw rek ñu wax ko suñuy doléance rek tali bi moom mooy suñu problème tali bi daal moom buñ ci dimbalee ñun ñu jël ndax boo seet tey boo doon dem Mboro da ngay wiiri nga dugg ñetti oto te bu ñu amoon tali fii denn rek nga dem waaw loolu daal mooy suñu problème tali bi waa yaakaar nañ ko daal.